Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo di may seen revue de presse jàngeen jëf réew mi quotidien xëy ak ñun tey ci inondation yi nga xamante ne ñoo xew ca Touba di yëgle ni xalif général kullu murid daal dinay déclenché plan Orsec ngir wàllu ñiy loru ci mbënn mi bokk na ci dogal yi mu jël lu toll ci ñaar téeméeri million ci suñu koppar ngir taxaw askan wi foofe ca dëkk bu tedd ba moom Serigne Mountakha Mbacké yamu ca ndax yéeni kaay groupe réew mi network bi mu ñuy xamal ni woote na taalibe yépp ak kilifa yi yi nekk ñu daal di ciy dugal seen loxo rawatina ñi am kër te amul ñi fa nekk ñu daal di koy jébbal ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy njaboot yi loru ci mbënn mi dogal yi xalif bi jël fës nay tamit ci yéenekaay bi di bi le jour naka noone le quotidien le quotidien mi xam ne ni xalif bi jëf na waaye tamit woote na wallu yéenekaay bi ne sëñ Muntaxa Mbàkke daal di nay génne lu toll ci ñaar téeméeri million ngir kon xeex lu jëm ci wàllu mbënd mi ci biir le quotidien fësal nañuy tamit kàdduk sañ Bass Abdou Khadre mi xamle jëwriñ ju ñu dénk wàllub assainissement ni kon jot na léegi ñu daal di soobu ci liggéey bi foofee ca Touba ngir xeex lu jëm ci wàllub mbënd mi laataa loolu nag 24 heures nee na xalif bi moom jóg na taxaw ndax xam na ana lan mooy métti askan wi dëkkee ca Touba li métti suñu naataango yi nekk ci yor yoor bi mooy koppar gi ñu dugal ci programme yi nga xamante ne moom la ñuy jagleel xeex inondation yi ca Touba te ba fi ñu toll ni indiwul benn saafara moo tax yéene kaay bi di laaj ana fan la ñeent fukk ak juróomi milliards yi nga xamante ne Macky Sall yëgle woon na ko ngir xeex mbënd mi foofee ca diwaanub Touba ngir waajal élection législative anticipée Sud Quotidien mu ngi ñuy xamal ni kon état ci boppam jamono ji ma ngay accélérer la cadence ndax njiitu réew mi daan nay convoqué corps électoral bi ba noppi fësal tamit li nga xamante ne moom la ñu war a xaajale siège yi enquête mel ni ku koy dëggal ne kon yëf yaa ngay bar jamono ji ci wàllub élection législative anticipée yi nga xamante ne jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub novembre bi ñu dëgmal njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mi convoqué corps électoral bi sonj na bi mu dénk wàllub kaaraange biir réew mi ngir lépp lu ci war ni ay matu matukaay ñu daal koy jël wax na tamit li nga xamante ne moo jëm ci campagne de communication biñ a def li ñu war a def ci élection législative yooyee bokk na ko déposer las quotidien di ñu xamal ni kon yëf yi dina door ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub septembre bi looloo tax bis bi le jour jàpp ni app bi ngir lu jëm ci wàllub dépôt de candidature yooyee mu mel ni dañu ko daal di tënk mujj ko gàttal lool ba tax opposition bi ci seen wàllub alliance ak investiture mel na ni fukki fan képp la ñu am ngir ñu daal di koy liggante yéene groupe E-Media bi di xam ne ni kon moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye sàkku na yi tamit ci jëwriñ ji mu dénk kaaraange biir réew mi mu daal ubbi ay waxtaan ak ñiy sekk yëf yi mu mel ni yëf yi leer na ndax élection législative yi ak lépp lu ko wundu Le Soleil yéeni kay nee na njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daati nay xaatim ay décret am ba noppi dogal yi ci war yëpp jël na ko ni ki démb donte nguur gi jël na dogal yi ci war waaye L'Observateur gis na ni élection législative yi ñu dégmal moom bëri na lool lu ci war a juddu ni ay coow te li koy waral bokk na ci ñàkk respecté li nga xamante ne moom mooy délai yi moo tax yéene kay groupe Futur Média bi gis ni boo moytul nag cour suprême dinañ ko saisir ngir mën a gàntal yi nga xamante ne njiiti réew mi Bassirou Diomaye jël na ko jëm ci élection législative yooyee législative yu ñuy waajal les échos dikk na ci di xam ne ni état major yi moom jamono ji ñu ngay waajal seen bopp bu baax a baax ndax fukki fan képp la ñu a déposer seeni liste kuréel gii di atel nga xamante bëree bëri jamono ji tembe ñu ngay waajal seen bopp tey ji sax war nañoo sekk ab ndaje ci seen biir Bougane mi sekkoon ndaje taskatu xibaar yi ni ki démb daanaka li mu yàkkul Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye da ko fàtte moom njiital mouvement gëm sa bopp ci la tribune di xam ne ni kon ñi dañoo tële ci situation économique bi réew mi toll wàllub mbënd mi tamit naka noone li mu duppee ay scandale yu ñu tàmbalee nemmeeku scandale yooyee moo tax Dakar financier bi ca jamono jooje Walf Quotidien di yëgal ni APR moom ak Benno Bokk Yaakaar jamono ji daanaka dara desatu fa li ko waral yéeni kaay Walf bi mu ngi ñuy xamal ni kon ba ñu ñàkkee nguur gi ak léegi ñu bëri ci ay kàngam yu nekkoon ci parti bi ak coalition bi dañoo daal di beddeeku parti yu boot woon tamit ci coalition bi jamono ji ku ci nekk mu ngay xool naka ngay doxalee sa bopp moo tax suñu naataango yi njort ni li daloon Abdoulaye Wade ak PDS ba ñu ñàkkee nguur gi moom mooy yootu ki nga xamante ne mooy Macky Sall li yoot Jérôme Bandiaky waruta neex xeex libération xëy tey di xam le ni ki ñuy duppee sniper jamono ji mu ngi ci loxol dikka démb lañu ko daal di fekk ca këram mujj ko teg loxo daal di koy yóbbu ca gardaaw yi les échos dëggal ko yokk ci ni sax moom Jérôme Bandiaky li waral ñu teg ko loxo bokk na ci coowal Didier Badji ak Fulbert Sambou bi nga xamante ne lu ñu ko ciy tudd bëri na lool yéenekaay bi di xam ne ni kon ki bokkoon ci ñuy watu karange waa APR démb la ko bip daal di teg loxo te yëf benn résistance ñi résister démb kay ndax Rewmi Sport mu ngi ñuy xamal ni ci jongante Ligue des champions bu ñu sekkoon ak waa Manchester City dawuñu benn yoon ñu mujj témboo kenn dugalul sa morom dara Dortmund moom ak Paris Saint-Germain daanaka ci njeextalu jongante bi la ñu daal di mucc Celtic nag mooy ki wane boppam dëgg ni ki démb ki war a wane boppam mu ngi ci xët bu njëkk yéenekaay bi di record muy Lamine kamara mi nga xamante ne moom ak clubam bi di Monaco war nañoo dalal waa FC Barcelone ca stade Louis II jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal